ni ay rab yu ñu firi te nag def njombe bu la neex dañuy faagaagal ñu défendre suñu bopp. ñoo xëy rek dem songu nit ñi waaye tey nga gis ñoo xam ne xëy suba bëggoon jot ne tey ma songu na ma as waaye tey am na ñu fi ne coppet dara yëngatuwul kon réew opposition opposition opposition d'opinion opposition programmatique waaye opposition boo xam ne su ma déggoon jot di sos di wax ak di jaay nit ñi doole te doole googu yoroo ko nañu te te mbokk lañ ndax ñu jëm yéen a wax cinquante bu soobee yàlla dina ko ëpp sax moo tax moo tax kuy opposé rek na nga ànd ak ak dal ndax du course de vitesse course de fond la course de fond la de course de fond nag bu ñu demee dix kilomètres la bu ne daw ba li koy daw cent mètres gëm naa ni balaa premier quatre cent mètres di nga toog te loolu moo leen dal de jaare nañu ba pare. moo tax li ma bëgg ñu waxtaan lii xumboo rek la parce que politique nag dañ ciy def tuuti xorom waaye lii taxu ma war a jóg dañ leen waxoon ni campagne ren bi fu ñu dem yéen ñoo ne bi amul ñu ne leen projet bi mooy programme bi ñu leen présenté woon dem ci ci ci élection présidentielle bi waaye nag boo ko andee ba pare dañu ñu jox la lang yi da nga koy ñunugaat toggaat ko pour mu gën a saf dañ ko génnee keroog présenté ko centre Abdou Diouf dafa naa ah, ca la coolu jeexoon amatuñu lu ñuy wax ni ay xaw naa ñu doon PSE jëlewul sax PSE PSE dafa jaar nii suñu programme jaar nii moom décret la am waaye décret mooy du domaine de la loi ak lan mooy du domaine du décret kon décret lu limité la kenn waaye loolu il faut budget ba dem assemblée assemblée nationale la fonction de représentation assemblée nationale la waaye wax nañ ko am privilège juridictionnel néew ñu kenn mënu leen atte de waaye dañ ne tribunaux yii mu justice assemblée nationale ndax bëgg ngeen ñooñu layoog Sénégal kon yii yëpp bu pour président Bassirou Diomaye ak gouvernement am li nga xam nun nag dañu bëgg ñoom liy rëcc ci ñoom dugg assemblée kon loolu faw rekk ñu complété ko nag campagne bi dañu fas yéene bi wax na leen les grands axes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 parce que dafa am ay réalité sociologique au Sénégal boo demee vers le sud-est mun nga ne dama koo bëgg a tuddee Bundu waaye kenn naan de ah Bundu de benn la woon ci royaume mi fi nekkoon waaye am na beneen bu nekkoon à côté fii boo ñëwee mun nga ne dama koo bëgg a tuddee Kayoor waaye dañ leen a région ci.